maanaam góor gu nga xam ni dafa tële mën koo faj yow. damay faj impuissance te ñi ma ci faj ñëpp am naa ci résultat bi Jojo. non impuissance boo xam ne judduwaale la wala boo demee dafa dem ba ci digg bi mu dab la wala lan. non judduwaale mënuma koo faj mais ki nga xam ne daf la dab moom boo ñëwee ñu fajala ko ci deux jours mu tàkkali koog yow. mais rab rab day def loolu day. da koy def bu baax nga yegg sa jabar gaaw a daan waaw waaw da koy def. waaye déet waay. waaw waaw rab day def loolu mbala nga tiim jigéen rek yegg. kon da koy def. maar de taali. da koy def. yàlla yàlla musal ci rara ba bon amin amin li muy def bari na. ba wala wala mu tëyee awra awra góor bi du mën du mënati dara. gis koo bëgg mbala koo xemmeem boo ko tiimee doo nekk góor rab da koy def. rab amul lu mu munul. te yow loolu yëpp booy seet nii yow di nga gis ne kii rab. bu nit ki bu ma jàkkaarloo mu ne ko jàkk ba suñu ñeenti bët tasee ma ne ko lii ak lii moo la dal mu ne ma waaw ma ne ko lii laa koy fajee mu ne ma wa bu ma ko fajalee mu deñ dootu soxlaatuma muy ñëw ndax wér na impuissance beeg yëpp. lépp impuissance beeg rab beeg keneen ku leneen jàpp bu ma jàkkaarloo dama naan jàkk lii la ak fii la la dalee ak nii la la dalee rek yàlla may nañu loolu. yow daan nga dem ci télé yi. Euh, daan naa dem ci télé yi mais bariwul. mais dafa war a bari. dafa bariwul xam nga xam nga xam nga yéen. da ngeen a am mission bu doy waar. mission bu ngeen am parce que dégg naa sax nga am xam-xam jàngale ko sax bés boo génnee àdduna. dalay jariñ fa nga nekk nga am xam-xam tamit jaamu ci yàlla tamit da ci am ay tayaaba bu baax tey góor ngóor a tax ñu naan góor kon góor boo dee ba sa ngóor dem yow nga fexe ba mu récupéré waat ngóoram mais yoon danga ngaa war di génn télé bi ñun ñu xam fan ngay nekk di la mën a fekk si ngay mën a dimbali doomu aadama yi ndeysaan mhm, parce que léegi léegi nee nga ma jigéen ju ok jigéen bu mënul ëmb da nga da koy ñaan mu am doom. dama lay faj dama lay faj. waaw mais xaaral waaw d' accord mais tey bu fekkente ne xam nga am na tey jigéen yu nga xam mënuñu am doom parce que ah, rab boo leen tëyee. Hmm. d' accord daa nga mën ko faj. Hmm. mais jigéen bu xam ne mën am doom parce que dafa feebar ah fibro wala yeneen ak yeneen ak yeneen ak loolu yëpp da nga koy faj. fibro dama koy seeyal Jojo boo ko amee dafa am ay tee ma lay jox yoo xam da nga koy naan mu seey jeex da koy tuur ndox ba mu jeex mala nga indisposé mu ànd ak moom dama koy faj. koo xam ne kyste da koo jàpp dama koy faj jarul ñu lay opéré boo ko weddee bu nit demee bañ bëgg ko opéré bu ñëwee ma faj ko ci gratuite. nga ne bu nit demee bañ koy waaj a opéré. bu ñëwee ma faj ko mu daal di seey mu tàkkali kook moom mais am na ñoo xam ne seeni bos day màgg faaw nga dindi ko waxuma ñooñu ñi nga xam ne da dem bay saigné mbala fibrome bi dem na ba sax karaw. waaw kooku faaw mu dem hôpital ñu faj ko mais ki nga xam ne da koy dal nga xam ne dem na bay réyal sa biir ngay sentir règle yi normalatul trompe yi di buuse dañ koy faj bu ñëwee ma fajal la ko léegi ndomb bi lan la bii nga wax nii bu ko takkee rek day am doom déedéet fas bii fas bi ku ko takk rek day am doom ah waaw xool fas bi waaw fas bi ñaari façon la euh, bii nii jigéen joo xamante ne kiiwul bu ko takkee day am doom bii nag tilimul la tudd ku mënul am jëkkër buñ ko ko takkalee bala muy tilim nga am jëkkër maa ko wax balaa muy am tilim nga am jëkkër luy tilim balay fas bi di tilim nga am jëkkër <laughs> ay waay daw Samba Saliou xaaral maa ngi ñëw ci sa question boobu te laa doom ñëw gars yi ñu ngi may dee fi lu neex bii ku munta am doom bu ko ma ko ko takkalee maa koy takkal nag waaw ak foo mën di nekk dangay ñëw ñu takkal la ko boo ko takkee boo weer ba jotee nga jël te boo jëlee dama lay takkal loo xam ne doo avorté booy am doom kenn du la opéré tamit nay leer ndax fii lañ ko waxee ok am nga ne bii tilimul la tudd fas bi tilimul tilimul la tudd jigéen boo ko takkal ku mënta doon balaa moo tilim mu am jëkkër nga am jëkkër waaw mhm, nga am jëkkër jàmbat leen nag mu ngi ndomba bi ku ko takk góor ko xaar ñëw ci biir na ñëw ci biir ba pare <laughs> balaa ngaa ñëw ci ndombali uh-huh. boo ko takkal mhm. bala muy tilim nga am jëkkër lii kon du mat 15 jours parce que ay 15 jours dana tilim non non du mat 15 jours incha allahu rabin balaa muy tilim mu am jëkkër am na ñoo xam ne dañuy dàqaati tamit nay leer waaw bu fekkee dàqe woo nga am jëkkër bala muy tilim góor bu bëgg a am jabar góor gu bëgg am jabar ndomba lañ lay jox boo ko takkee ndax góor ñi dañoo bari rab te seen rab daa soxor bokkul ak bii tamit déedéet bokkul kon bii su ma ko takkoon di déedéet ndomba laa lay jox nga takk ko ndax nga mën a am soxna zozo ma am jabar waaw ok léegi <laughs> maa ngi doog a am gan kontaan naa trop lu waaw <laughs> ndomba bii jàmbat leen ah foo ko takk bu la neexee jàmmaarloog dëmm du la mënal dara bu la neexee jàmmaarloog saytaane du la mën jàmbat leen daal la tudd ja jàmbat leen nañ la jàmbatee nu ne mee dara du la dugg du paaka du rab du saytaane du dëmm du nit ku bon lii karaw lan la. <laughs> karaw muus la. karaw muus bu ñuul. muus bu ñuul. waaw. Saliou nga ne lan. Mhm. karaw muus bu ñuul. moo nekk ni waaw. nga ne kii boo ko takkee. jàmbat leen dugal fu ne defal lu ne. lu ne def ko. ñu lay jàmbat mii duñ la mënal dara. du paaka du fegal du. jaar dara dara lañ la dul mënal zozo dara. ñeent bopp yëpp ngay tëj juróom ñett ñett yëpp déedéet bu fekkee da ngaa nar a def dégâts tëjal juróom yëpp bu fekkee ñett yi bu fekkente naroo def dégâts takkal benn bi rek ñu di lay jàmbat duñ la mënal dara bët saytaane làmmiñ ak nit ku bon ak saay-saay dara duñ la ko mënal dagam neex na rabbi sama waaj soo naree def dégâts na nga tëj lépp nga tëj lépp bu neexee yàlla dañ lay jàmbat mais kaso du la féete ginnaaw ah bii da xam naa ne moom ah Saliou génn leen la <laughs> ah kii sama gan la waay. ndombali tegal ma ko di aada tàndaan. beneen ndomba bi lan la. waaw beneen ndomba bi pour ñi nga xam dañuy xëcc ndomba tànk ndax nit ñi dañoo bëgg ndomba tànk. ma xool waaw nga xamante ne bii deru lañ ko ëwee am na ñoo xam ne dañuy bëgg doon. deru bay coow dina la topp de. waaw ndax bayre bay mais ànd naag kaaraange ànd naag muslaay ki nga tànk moo xam ministre la moo xam muy xëcc pour nekk euh, adjudant bala colonel bala commandant yaa xam daal looy xëccu ci ndomba tànk bu ñu la ko takkalee par force bu ko fukk doon xëccoo yaa koy jël ah. deru bëy nga ko defee. deru bëy lañ ko awee deru bëy bu xonq bu marron. mais mais lii am na alxuraan ci biir. am na alxuraan am na alxuraan am na sunguf am na poudre fetel. am pettaaw. am na poudre fetel tamit en même temps waa. après di nga ma wax njëg yi war naa seer de xanaa. <laughs> déedéet zozo ñun lépp lu ñuy def dañ ciy def dugal xéewal. wala doo wax prix bi. non jarul ñuy wax prix bi ki nga xam ne bëgg na ko bu jàkkaarloo ndax am na ñoo xam ne da nga leen di wax sax waaw bu fekkente ne ndomba tànk nga war a jàmmaaloog sa ay soppeek say noonu koy tëj dem jàkkaarloog ñoom ñëpp naan pat même bu fekkoon ko doon xëccoo ñëpp ay sedd jox la victoire ah, kii te ngaa jox bi Sonko wala Macky Sall dañ ko soxla de yoon <laughs> ñëw ci loolu mhm. béjjin yi waaw yi nag euh, ki nga xamante ne day jaay mu taw a jar ak ki nga xam ne dafa ibbi bi itam du dégg jaay ma jaay ma bi. bu ko wekkee ci place ba day jaral. ki nga xamante ne amul bayre amoo soppe nga def ko sa saak foo tourné nit ñi dañ lay topp. Oh. am na ñoo xam ne amuñu soppe amuñu bayre foo dugg da ngay fay. dëgg la da ngay fay kenn du la bëgg kenn du la sopp am na ñoo xam ne fu ñu dugg nag yëngal dëkk ba daal di wane ginnaaw bàyyi fa réer lekk mhm, bàyyi fa coow la looloo tax ndoom ba kii bi jóg béjjanti bi léegi li nga jëlee sa ñoom maam lan la xam li nga jëlee xam bi waaw am koo xamante ne falaa jóge sax doon ko faj lii xam nga dañ ci faj kortu xet xubuy bii dafa am koo xam ne dañ ko sànni kortu moom laa demoon faj ji léegi ma faj ko mu dese benn waa ma indi ko ndaxte lii dañ koy lakk am luñ ko booleel daal di koy def sotti ko ci góom gi nga xam dafa am góomu robaale ak ah? ki nga xam dañ góomu robaale ak ki nga xam dañ ko sànni bu buñ ko ko defalee mu wér ndegam neex na yàlla